ndeysaan ñaari mbër yaa ngoongu taxaw Balde tey la dimanche 24 octobre général Malick Balla ku ci li nga doon jaay tey lay lamb bilaay léegi géew bi wéet yéen ñaar kese ngeen des ci drapeau Bamba Fall ngeen di bëre Balde koy filmer Babacar a koy commenté général à droite moo taxaw à gauche fils Balla Malika ak Géejo ñaari xale combat bu yàggu yoon blessure sax am na ci ñu aj combat bi corona tax ñu aj combat bi waaye olof ne na loo gis bés lay xaar bés ba ñëw na tey Baldé général nag am na lu mu samp ci kanamam man daal général tey bëgg na lu xonq ci bés bi looloo ma man waaw xoolal loolu garab saabu bu dee nii lay def xob ya day ruus waaye moom garabam kii boo xoolee ay béjjën la ko booleel ay béjjën yuy lang ñetti béjjën garab gi nag boo xoolee ñeenti bànqaas la am Lamine Kolo Fils de Balla moo koy tàggat Lamine Kolo entraîneur école it Balla Gaye mu ngay wax ak mbërëm da koy yet loolu mooy dernière réglage yi yeraange da cee baax général sukkuna général sukkuna am na lu muy naan ca suuf général am na lu muy naan de ànd ak Boy Malika cey ji làmb cay ji làmb nday Fatou Adama Jali jël nag micro ba cey làmb ji Assane Ndiaye Baol macca wax na ñoom Assane a fi woote tey nday Fatou ñëw na Ndickou Thioune ñëw na Sidi Diop ñëw na drapeau Bamba Fall ngeen di bëree waaye jib seen patar seen nuyu naa ko borom la huit lay fête anniversaire happy birthday to you avertissement général avertissement fils de Balla ku naam nga benn avertissement macca leeral na ko Balde pare nga waaw abi soufflé na la ilaha illallah yàgga takkoonte fils de Balla ay waay ba wàcc ñoom ñaar ku ne pied gauche jiital seere la pataake fu nuy mujjee fu luy xew général gëdd na fils na jëli ko général ang koy door fils de na jëli général ang koy door général ang koy door fils de na ko ndombo fils de Balla wër ko ndombo mu mu ngi koy door mu ngi koy door général day daanu oh général war la ndombo bettu ma woon de lii ci am fii ca balla général jóg na général jóg na général jóg na bañ na de trois appuis war ndombo door mu ngi koy door fii ca balla war na ko di ko door eh Balde door ya de waaw dóor ya metti na général nee na du daanu général ndax doo daanu général ndax daanu général ndax daanu fi nga dugg baaxul de ay général fiñ la fiñ la tee général fiñ bal de fi balla mbër mi bi ñëw daa décidé de te daa bëgg combat bi ñaar ñu am décision ay Assane li nga boole Fils de Balla Fils de Balla ngay wax ak supporter ya Fils de Balla tee nga bëre da koy daan bañ na bañ na de bañ na de am na ñuy sànni ñooñu teeñoo ñoo bàyyi li ñuy def général Malika Fils de Balla daan na ko Fils de Balla daan na ko jël moom ko daan rëy na laa ilaha illallah lamba waneeti na boppam géejawaay waneeti na boppam oh général am na lu ko bet général am na lu ko bet général am na lu ko bet ñëpp dañoo jàppoon ne Fils de Balla général ko man man bëri naa général 37 minutes dama kaa bëriloo ba am rama daan ko parcelle 2013 mais comme Sénégal dañoo war a xam ne Fils de Balla dafa bokk lambo Dafi sa Balla 130 kilos lay pos 120 kilos day bëre moo ëpp général bëre barki Seydina Mohamed mais loolu moo feeñ ci lamb ji day Matar Ndiaye Matar félicitation merci beaucoup Babacar dama laa gis nga ñëw ci stade bi ak xel mu dal amoo benn yoon stress lan moo waral loolu yàlla xam naa yonent bi wóor na Serigne Babacar si damaa gëmoon ni général tey Fils de Balla da koy daan dama koy wax magam Daouda Soumaré moo ko waxee mu reetaan ne ma yow bi ma xam ne dafa pare mbër mi rassuré ma coach am Lamine Golor rassuré ma wala lazim Fils de Balla dama ne ko soo defee li mbëri def gëm sa bopp di entraîné rey sa bopp bañ a xaar am combat di rek doog a entraîné mën naa am lu nekk ci làmb billaay walaay am na jëmm ji am na taay bi am na bëre bi am na fit bi barke Serigne Babacar Si Dumkar maa ngi sant yàlla man Fils de Balla damay ànd ak moom dëkk Géejuwaay di dégg lu ne tudd Dum Sall Dum Sall bu Serigne Babacar Sy laa tudd daan ma ay Dum ay ay Fils de Balla ngay daan ay booy bii lay àndal barki Serigne Babacar Sy laa la waxtaan yeneen yeneen combat di am na Balla Gaye du yàgg mu bëre Matar Ndiaye léegi foo jëm ndox fu laa jëli non dugg naa ci gars yi comité simple xam nga Franc mi ngi def ay jaloore ci Franc laa jëm man Matar Ndiaye maa ko wax laa jëm Balde tey la 24 octobre Assane Ndiaye andi lamb ju doy waar général Malika Fils Balla wax naa leen ko Fils de Balla dafa liggéey ci combat bi te bi mu summee ko boo ko xoolee xam ne daa liggéey te gëm na ne day daan te xale la boo xoolee la ma waxoon bañu bañ mu bëri ci koom loolu la def moo jëli général ñu bëre mu senn ko sànni ko wër ko yaa ngi dégg confiance ne fa bës ko bëre ak moom ba ni mu ko daane mu jël bu leer nañ kon général Malika di courage Fils de Balla félicitation lamb noonu la lamb moom lu la waay mën a wax da koy teg ci yoon félicitation maa ngi lay bëgg a dum sal félicitation di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di wax jib seen borom le 28 octobre happy birthday borom le 8 novembre happy birthday to you tey moo ma solal tey li ma sol yëpp jib seen la borom Petersen waa Géejawaay amati nañ ndam tey ah Géejawaay Géejawaay Géejawaay doy na waar dimanche bale Géejawaay tayaat Géejawaay Balde ba beneen yoon